gars di dem Europe ñii di dem ay Suisse ay ay ay man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran Irak yàlla na defar ñu li gën ci ñun te mu gënal ñu yàlla na yàlla sàmm sàmmal suñu njaboot kër ak àll ku ñu nar a ba ñu fàtte yàlla yàlla na yàlla mbugal ba nga fàtte ñu amiin. waaw xibaari misra yi ñu doon wax ak euh, turki xam nga misra ci jamono yi passé dafa am euh, ñetti kaari sa yu fa xew ci benn bis euh, boo demee ci xaayira ci boppam ca capital ba dafa am benn immeuble bu fa màbb daanu fa ay nit ay nit ñàkk ca seen bakkan ay nit blessé ca alal ju bëri yàqu fa ñu ne ci loolu lañuy ñuy yem ay ñaari sa ñaari saxaar ñoom itam daje fa mbëkkante fa bandana ka fan weer ni teglu top de ci ay blessé yi bari am ca ñu ne ci loolu lay yem mu am benn bato bu mab mu mam bato bu mam nak buñ ko waxe kanal de ses fa la bato bu màbbee mamé manam bato bi fa duy ay xaawiyaat ba fess del modi di ay container te nek cargo cargo gu mag don daw ci canal de ses daal di déraper kolosé ci si bi mu ko rasee ci suuf si nag ganalu galandu eh, galandu bi mu galandoo kanaal bi nag bato yi mag yi mënatuñoo jàll ci ay ñetti fan rek am nañu pertement ay milliards yi milliards yu kenn xamul nu mu yem am nañ ko ci bate yi daan jaar foofu di fay am nañ ko ci marchandise yi waroon a jàll te téeméeri ñaar téeméeri bato topp waroon jàll dugg ci canal bi war a jàll kale fu mënatu ñoo dem ndax bate boobu leen kale ba fi mu nekk nii am na ay marchandise yi doon jóge Chine waroon na dem Europe léegi bu bato yi jógee te Chine fa ñuy teggi jaari fa mooy gannaaw Atlantique rek amuñu feneen fu ñuy jaar te su boobaa bu ñu eggee marchandise mi dana multiplier wu quatre fois ci li muy jar ci bu ñu jaaroon canal de Suez ci ak yombam am na sax ay cargo bateau pétrole yoo xam ne ña nga fa kale te ka te kale googu bu continuer day mujj pétrole bi bu manqué day mujj essence ak gasoil dina manqué ah Égypte nag de mu lu nekk def nañ ko benn tracteur kii daal lañ fa yóbbu woon waaye xam nga tracteur. xaw ma ab quatre pilar yooyu di yëkkati di di di maanaam yaama kooki laa koy tudde ndax day tibb di yëkkati sotti moo fa demoon di ca jiim waaye loola mënu ca dara ah tubaab bi nag ñu ngi toog di seetaan américain yi ngi toog di seetaan te bis bu Égypte romb rek da koy fay dana dana ko fay daal milliards yu bëree bëree bëree bëri yoo xam war na koo fay borom bato war na jàll te ah ba itam société yi yoroon seen i marchandise marchandise yi waroon a dem ñu jaay leen ñu toog foofu itam lu ci yàqu ba na ko fay lu ci yàqu di tardement gi da koy fay Égypte daal tegu na ay bor tegu na ci moom yoo xam ne kenn xamul nu mu yem ci wàllu canal de Suez te bokkul ak ñaari saxaar yi mbëkkante yooyu bokkul itamit ak immeuble bu màbb boobu li tax nag jullit ñi war a fonkante ci seen biir bopp wala jàppante bis bu julit amé problème yi démé noonu yëfar yëpp dañuy tok di seetaan amérique ngi tok di seetaan france ngi tok di seetaan allemagne ngi toog di seetaan turki daal moo yëkkati né ne da na yónnee benn cargo bateau bo xamné ne rek moy métier bateau da nañ ko yónnee mu ñëw jiima remorqué bateau bu jadd yoon bobu ba dugg ci suuf ci delloosiwaat ko ci biir ndox mi bateau bi dem nit ñi mëna mëna départ ci liggéey loolu dal Karagul wax na ko eh, ca te moy ministre bi yore mbirum liggéey bobu ba dal xamna ni bu ko ci defé dal dana génne adina bi ci ben problème bu maga maga mag bo xamné yalla fu muy jëm mujj ndax ñetti fan rek ay milliards milliards yàqu te buñ demone fukki fan ay milliards milliards milliards mi milliards day gën a yàqu day gëna di gëna ñak té lu fa bat yoy taxaw Égypte da koy fay Ah, ya, Erdogan nak neena dina yoni na bata bo xamé day ñew bu diké lonk bata boobu génne ko dal di koy xëcc mu déllu ci waat ci biir géej gi mu mëna dem bu mënee bu démé nit ñi euh, ba tey door a dem ndax dañu doon xalaat ne dañuy wàcce xaawiyaat yi moo ay container dañu non dañuy wacc xaawiyaat waye xam nga itam loola machine bu koy waccé dab bata lay doon ba ndakam lengé ah légui dal euh, Erdogan neena na nañ xaar mu ñew mom bu diké dana dana dékkër ci bata bobu dellowaat ko ci biir kanaal bi mu départ dem su ko defee ba tey door a mën a dem ah loolu nag bu ko Erdogan defee benn dina ko defal waa addina yëpp ñaar dina ko defal waa alamul islam yi gépp ndax euh, moom rek moo fi réewum l'islam mu am doole jooju ñetti itam dana génne Égypte ci gutta goo xam ne xamuloo fu mu mujj moom te Égypte xanaa dina fay bor bi Erdogan tappaas yi koy tappaas ak coqootu yeeg dem di ànd ak Israël Israël a ngi noonu waxu ci dara. waa waa gars yi ànd ak Israël waxuñu ci dara benn turki mu yëkkati la xam ne moom dana ñëw génne bata bi ndax eh, bata bi ci biir alamul islami la cange te day day day indi problème waa àddina bi yëpp te ñaar bi day tegal day bëgg bu bu yàggee dana teg turki eh, maanaam dana teg Égypte bor yoo xam ne du ko mën a fay te assurance yëpp koy taxaw ne ko di nga fay ndax yaa ñu tardeel loolu daal ci la ñu nekk temps yi passé hmm, saxaar mbëkkante na fa ay ay fanweer dee na immeuble daanu na fa ci même benn bis bi bato boobu jàdd na yoon daal di taar dugg ci joor gi mbëkk ci joor gi lu sori ah léegi genn wàll gi des ci géej gi galandu booy beneen yi mënuñoo jàll Erdogan nag nee na danañ ci génne nañ ko déglu fekk ñetti fan bu fekkee génn nuyu ci nag ñu gën ko ñaanal yàlla rek te xam ne benn grande puissance islamique la boo xam ne yàllaa ko yàllaa ñu ko joxagu daal yàlla nañ ko yàlla sàmmal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di dem Europe. ñii di dem ay Suisse ak ay ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yépp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay Irak teere Tanzanie